fii fika passeport diplomatique la ko waral bokk na ci ay agent de l'état ñoo ko jël di ko jaayee di ko sàmm ci marché bi yéen kaay gii di vox populi xëy yu wax ci beneen détournement boo xam ne am na ci trésor public yéen kaay gi ne na détournement bi toll na ci 4,6 milliards yéen kaay gi na dikk division des investigations criminelles am na ñaari percepteurs yoo xam ne teg na leen loxo kenn ki Mbàkke la dëkk kenn ki Saint-Louis la dëkk yéen kaay gii di libération nee na ñaari inspecteurs yoo xam ne jamono ji ñoo ngi ci ab garde à vue journal bi xëy xibaar naan ñu yi nga xam ne moo am ci réewum Sénégal la bëri na genn xeetu bëri goo xam ne fu ko waaye natt passé na ko ndax fan yii nga xam ne moom la génn doon ngeen dégg ñu ne poste détournement dafa am ak fi nga xam ne mooy ca diwaanu Lonas foofee fépp ñoo ngi fay tudd ay détournement yéene kaay gi ne na léegi dafa mel ni pandémie laas yéene kaay xëy diñu xibaar naan ñu dikk division des investigations criminelles ñoom nag jàpp nañ ne giraawali geek njublan gi nga xam ne am na poste maanaam ëpp na 4 milliards A nee ñoo ngi leen di tudd ci lu jëm ci wàllum dénk wàllum affaire étrangère agent yooyu ba léegi ñoo ngi am ay retour de parquet lan moo ko waral journal bi xëy na si maanaam di ko càmbar yéen a kaay gi de Le ñu xëy fekk fa Omar Dia Sudes daat nay wax ne violence bi nga xam ne maanaam moo am ci université yi li ko waral mooy condition de travail yu catastrophique yi maanaam moo ko waral mooy jafe-jafe yeeg nekkin bi nga xam ne maanaam moo jafe lool ci njàngale mi nga xam ne jàngalekat yi ñoo ngi si ak nekkin bi étudiants yi nekk loole rek moo waral violence bi nga xam ne moo am ci biir université yi moom Omar Dia daat wax ne on est très mal placé pour donner de morale aux étudiants yéen a kaay gi de la ñu xëy fekk fa ki ñu dénk njàng ma kaw mi di Cheikh Omar Anne daan nay wax ne étudiant bi faatu ca université Alioune Diop ba sa kooke nag li mu lekk faatu ko waaye nag dafa amoon benn jàngoroy res moo ko faat yéen a kaay gi de réew mi ko di cee ak sud ko di cee xëy di ñu xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi jamono ji nag ñoo ngi dox tànki jàmm ngir nag élection yi nga xam ne moom la ñu dëg ma lépp ànd akuk ñëpp daje nañ seen biir ngir waxtaan ministre réew mi di Félix Antoine Diome daat nay tere lépp loo xam ne jëm na ci daal yor ngànnaay maanaam arme loole nag Antoine Diome tere na ko ci biir réew mi yépp yéen i kaay gi de xëy duñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko yàq na musiba ak mbelengaana militant yi nga xam ne ñoo bokk Pastef ak militante yi bokk Pastef ndax nee na Pastef jamono ji am na si militant yoo xam ne maanaam jëf ju ñaaw ak doxalin wu ñaaw wi nga xam ne moom la ñu yi gis a doy waar am na ñu ba futu am na ñoo xam ne gedd nañu am na ñoo xam ne nee nañu dañuy def vote sanction am na ñoo xam ne dañoo bank seen loxo te lii lépp nag ci biir Pastef la lii muy aw doxalin ak aw jëfin woo xam ne ñaaw na ba jéggi dayoo Ousmane Sonko ne ñun sax dafa mel ni ñoo raw ñi ñuy xas moom Ousmane Sonko daal di wax ne jamono ji am nañu quantité waaye nag qualité bi des na lu baree bari coalition Yewwi Askan Wi maanaam comportement yi ñaaw yëpp boo ko xoolee présidentielle jëm ci projet de loi bi nga xam ne aju na ci maanaam sunu pétrole bi ak sunu gaz bi nan la ñu koy sàmmee ak xaalis bi nga xam ne moo fay bàyyi ko nan la ñu koy doxalee opposition bi ak société civile bi pouvoir bi ñoom ñëpp tey jii la ñu koy waxtaanee yéen a gi de direct news xëy dañu xibaar naan ñu Léopold Sédar Senghor bëgg-bëggam ba mujj ba léegi kenn respecté wu ko ndax moom bëgg-bëggam mooy bi mu faatoo maanaam ñu yóbbu ko Joal te ba léegi nii gars yi respecté wuñu ko yéen a gi di Vox Populi xëy xibaar naan ñu ca département bu Linguère am na benn commune bu tudd Gassana commune boobe nag dafa am benn jaaykatu pharmacie boo xam ne dafa jàppale benn elew ngir mu yàq biir ba ndax elew bi dafa ëmb ñëw wax ko pharmacien bi na ko man damaa ëmb te damaa bëgg a bi pharmacien bi nag dafa lànkoon kandaare bañ koo jàppale bi xale bu jigéen bi insisté si la ko jàppale jox ko ay doom mu daal di koy naan ba mu demee seen kër si la commencé sañe maanaam di génne deret ay waajuram gis ko nag jël ko yóbbu ko hôpital ñu wax ko ne ko kii da doon yàq ëmb bi seen waa kër dem gendarmerie ci la ñu tegee loxo ki nga xam ne mooy jaaykatu pharmacie bi yéen a ñu xibaar naan ñu mbir mu day war am na am benn xale bu jigéen boo xam ne ñaar fukki at ak la ma waaye nag xale bu jigéen boobee dafay jaay boppam maanaam ab prostituée la waaye nag dañu ko war a takk ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru décembre 24 décembre xale bu jigéen boobee nag ngir def benn mariage boo xam ne bu toj lay doon dafa sàcc lu toll si juróom benn ci ay coupon tissu brodé fi nga xam ne mooy benn boutique ci jëppala teg nañu ko loxo moom xale bu jigéen boobee nga xam ne ab yi la war a def mariage nag 24 décembre ndax mariage boobee du yàqu ma ngi ci réew mi quotidien a kaay gi dee sat xëy ci